Koorug Gaye moolum géej o xaaj Ibrahim Gaye li des ci koor gi fa ñu koy wàññi DG du benn bu mu wàññi day tàmbali rekk mujj a wàcc ni mu mel neexu ko seytaane moo ko toppee mbooro doonte ñoo ngi ci woor wacc sawar na lool ngir ànd gaañi ci koor gi waaye bu tàmbalee rekk daldi rékki tey ji nag caaxaan faaxi tëjtalu naafila gi tax na DG préparé boppam jumaa jëla fanaan ay téléphonam lépp mu ba gannaaw ngir jaamu yàlla lu mat o xaaj ibrahim gay ku say farata matut nooy farloo cig naafila moog waa jumaa ja ca julli geega laataa ñuy jóg ngir waajal naafila gi xaaj ibrahim ne bër xët waaye njiix dañoo war a gaaw ci naaf rek kim dendal wokku ko sëñ bi daral yëf yi kenn du ko sànjaaf o DG li ko wees la bëgg dabaatal faalewul waa ji na kilifa yi toogee di def seen baaxiyaatu saalihaat xaj ibrahim moo ngi ne jodd taxaw imaam ne allahu akbar dg mel na mooy bilaal allahu akbar naafila ga door o oh, xaj ibrahim gay gëree la ñu julli ñaari rakka daal di sëlmal dg subhaanallah subhaanallah gaa ñi ko comme mu sa jumaa ja sëñ lii naafila ñaari rakka sëlmal amul sabaxal dg <laughs> ah bon c'est pas grave on gère o oh, dg moo ngi lu mat dem nañu ñaar fukki simili xaaj ibrahim tànk ya taxawatut rakk yaa gudd comme kaamil la noon naafila xaaj ibrahim seytaaneem tàmbale na ñuuxu mu okk waaj xanaa imaam bi bees la fajar la jëm de dendal <clears throat> naka ñu silmalaat mu liyaar ko kuy julli du wax ràkka ya continué waat xel mi jox ko mu en arrière waaye nu muy def nit ñi ne ci sàpp yu njëkk ya la doon njëkkante o DG ndax du toog ko wéyal julli gi xolam mooy ko ko sànjàpp na ko imaam bi di jàng rek boole ko ràkka yu gudd xaaj Ibrahim mënatu ko taafantaloo na alxuraan gu neex gi <laughs> الله أكبر <laughs> يا الله ba mu naan gërëb gaaña petit mu nga defeenu naan allah akbar cig yalu o dg dippeeku wutu ba imaam ne asalaamualeykum xaaj ibrahim gay naafila tayam gile mat na waaye ngir mu dem kër ga sëriñ géey ak cheikh jaañ ñooy ki ko jàppoo o dg naka mu yegg kër gi rek bàyyandiku ñu tegal ko lekk dg ne tekk ndoxu naan xaaj ibrahim ne du naan ba moo effort bët euh, tayu ko ODG madam xam ne waayam jile coono ko alawtiku ba mu daataan yeewu tisbaara jot fekk xëddëm bi tiim ko mu xool montram xam li xew waaye li des ci waxtu wi woor ko jàpp na ne xaru la o xaaj Ibrahim Gaye la defati njaaxum aljuma jël si bool yi ngir sarax taalibe yi fekk ne xaaj Ibrahim raxasal na ko lépp ñeenti bët dajee DG lan la du raxasal la fa indi set na aljuma noo taalibe yi DG ne leen bu mag bi jaar na fi